الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñuy seetaan ci Mouslih TV ñu ngi nuyu ñépp di jéggalu ñépp di jéggal ñépp mbokk yi man oustaz Arfan Diouf ma dellu siwaat ak yéen ci programme yi nga xamante ne amoon nan ko ak yéen te mu jëm ci mbirum séy mbokk yi déglu kenn réerewul ne sey yàllaa ko yoonal ci alquran ak sunna ndax ñu mën a tabax ay famille fami yu am sutura famille bu am taraanga famille yu am ay valeur Euh, mbokk yi mais dañoo nemmeeku ne sëyug tey bari na ay jafe-jafe lool moo xam niveau Sénégal fii li ñuy dégg ci rajo yi ak télévision yi ak li ñuy gis ci quartier yi ñuy dëkk problème mu sëy lu law la lu tas na ci réew mi te mbir moomu booy déglu journal journal adduna bi walla ngay jàng xibaaru adduna bi dangay gis ne problème mu sëy tamit am na ci àdduna bi yépp ba tax na ci sunu émission yi dañuy dikk ak yéen waxtaan ak yéen joxe lenn ci problème yi nga xam ne mooy am ci néegu sëy waaye joxe ay solution waaye dinañ fexe waxtaan ak yéen ci ay technique yoo xamante ne ñaari woy dencante yi buñ ko gànnaayoo mën naa tuutil jafe-jafe yi nga xamante ne mën na am ci seen biir néegu sëy walla même jafe-jafe bu amee ci biir néegu sëy njàngat bi ñuy joxe ak ay données techniques yu ñuy joxe mën naa tax dañu maîtriser problème mu sëy boobu ba mu mën ba mu bañ a àgg ci fi nga xamante ne loolu mooy fase mbokk yi ñuy déglu ci Mouslih TV dañoo seetlu ne sëyug ndaw yi tey dafa bari lool li ci tas ñu delluwaat seetlu ne ci àdduna bi tey am na jigéen yoo xam ne dem nañu sax ba buggatuñoo ñoo ngir mitit yoo xamante ni dund nañ ko ci biir néegu sëy waaye ci beneen fànn ba góor yoo xamante ne bëggatuñu denc ay soxna ndax ñenn ci ñoom bunduxatal yi leen bunduxatal ci néegu sëy ñu dem ba am yaakaar bu tas fas yéene dund li des ci seen dund sans ñu dugga soxna bon loolu jafe-jafe la mbokk yi dégg mbokk yi nga xam ñeneen yi seetaan ci Mouslih TV dafa am ay étude yoo xamante ne boroom xam-xam yi gëstu ci sëy ak ay jafe-jafeem dañ koo def ñu gis ne am na ay jigéen yu bari yoo xam ne seen diina def leen ñor ba ñuy dugg ci biir néegu sëy ñu tànn ay góor yoo xamante ne jàpp nañ ne góor yooyu seen diina ñor na leen mu mel ni dama bëgg wax ne am na ay jeunes yuy góorgóorlu ci diina mais am na ay xale yu jigéen yuy góorgóorlu ci diina mu mel ni sax diina def leen boole ñu buggante ndax ku nekk diina ba nga gis ci sa morom waaye bu ñu bari ci ñoom bu ñu duggee ci néegu sëy sëy boobu day mujjee ci ay jafe-jafe ba am na jigéen yoo xamante ne ci biir loolu ba ñu génnee ci sëy yooyu nga xam ne diina lañ fa doon xencu daanaka keneen ku mel ni ñoom ci wàllu diina bu ñëwaatoon pour labat leen ñu ne leen doy na am na étude yoo xamante ne saxal nañu loolu ñaar ñuy dund diina bokk néegu sëy waaye sëy ba échec ku nekk am ci sa morom yaakaar bu tas ñu defaat beneen étude mooy koo xamante ne dafa doon dund diina nekk ko góor am soxna buy dund diina bu demee ba tas xale bu góor boobule bu takkee soxna soo xamante ne yittewul diina daaw nañu gis généralement ci li gën a bari ñoom ñaar seen sëy day neex bon am na problème comme ni nga xamante ne xale bu jigéen bu doon sëyal mbokkam ci wàllu diina mu am ca yaakaar bu tas bu amaatee beneen jëkkër boo xamante ne comme saaru booy disko yi seen sëy day neex bon am na problème bon problème am na bon problème am na kazalik mbokk yi dañoo gis ne tey jigéen yu bëri mm, avant ñuy dugg ci néegu sëy courage bi ñu amoon yaakaar bi ñu amoon ginnaaw bi ñu duggee ci néegu sëy même bu ñu tasul ñu bari ci ñoom seen yaakaar daa xaw a tas bu fekkee tasul bi jeex parce que nan doon jàppee néegu sëy ak ba ñu duggee ci biir néegu sëy lañu yaakaaroon ak la jàpp du benn mbokk yi ñuy déglu ñun comme ay jullit ñun comme ay senegale majorité bi nekk ay jullit gis nañu ne am na banditisme bu bëree bari boo xam mu ngi xew ci mbedd mi bokk na li koy waral mooy néegu sëy boo xamante ne normalut conséquence ya mujjee feeñi ca xale ya xale ya mujjee nekk ay délinquant wala ñu nekk ay tuxkatu yàmba wala ñu nekk ay agresseur moo tax bu ñu defaree néegu sëy lu bari ci société bi dafay dal di baax mbokk yi nga xam ne yéen ñuy déglu waxoon naa ci émission bi passé ne dafa am ñetti xam-xam yoo xamante ne dañuy intervenir ci néegu sëy rawat na ci sun réew bi ba ca jiitu ñun comme ay jullit mooy matière boobu ñu tuddee al fiqh muy jurisprudence ci arab wala ci tubaab matière boobu tudd fiqh dafay jàngale ab sëy waaye boroom xam-xam yi dañoo nemmeeku ne ku tënku te fikki kese ak règlement yi muy jàngale ku ci yem kese pour sa néegu sëy normal mun na am ay jafe-jafe lan moo tax ndax fiq def lay jàngal ay àq ak ay yelleef ay àq ak ay droit te néegu sëy ñaar ñiy dencante ku nekk bu buggee wax ne sama àq ak sama droit dina jafe lool néegu sëy boobu continuer nga ñëw ci liñ tuddee loi te moo di côté justice justice fii ci réew mi day intervenir ci wàllu sëy tey boo demee tribinal ay dossiers yu bari nga fay fekk yoo xamante ne problème mu sëy la ñooy dañoo gis ne ñun senegale sunu aada suñu cosaan képp koo xamante ne jël nga sa soxna yóbbu ko tribunal walla nga jël sa jëkkër yóbbu ko tribunal walla police dina jafe pour sey boobu delluwaat ba baax ba mel ni na mu meloon bu njëkk lu tax parce que ñun senegale dañoo jàpp ne ku la yóbbu ci yoon rek mooy mënatu la nekk sa mbokk mënatu nekk koo xamante ne dangay am confiance ci moom ci biir loolu ci la boroom xam-xam yi gëstoo benn xam-xam bu tudd fiqhul usra muy xam-xam boo xamante ne la muy gëstu nekkul ay àq ak ay yelleef loolu baal na ko liñ tuddee al fiqhul islaam yi mu jàngale ko mais ñëwul pour ate diggante soxna si ak jëkkëram pour wax ne kii moo nekk ci dëgg kee nekkul ci dégg déedéet mais li ko tax a jóg mooy deuxième li nga xamante ne fiqul usta dina ko jàngale mooy jàngal ku góor mooy borom kër gi jàngal soxna si ay technique yoo xamante ne sëy bi bu amee problème bu ñu utiliser technique yooyu seen problème mën nañ koo amal solution te fitna du fa am comme li nga xam ne fikkul usra dinañu jàngal dina jàngal góor ban jigéen la mën a seyal ak ban jigéen mooy jigéen ma mënut a sey ak moom jàngal jigéen ban jigéen ban góor la mën a seyali ak ban góor mooy góor bi nga xamante ne mënut a see ak moom parce que buñ see ci problème la ñuy mujjee bon ci xam-xam boobu lañu ñëw pour waxtaan ak yéen xam-xam boobu tudd fiqhul usra mbokk yi ñuy déglu tuy mbokk yi ñuy déglu ci Mouslih TV dafay wax ne jigéen yi juróom lañu waaye jëkkër yi juróom nañu tey boo xooloon société sénégalaise nga def ko benn étude bii may wax si dangay gis ne Sénégal yépp juróomi juróomi jëkkër ñoo fi am waaye senegal yépp juróomi soxna ñoo fi am groupe njëkk bi bu fekkee dañ leen tuddee groupe A ci xam-xamu fiqul usra ñu leen tuddee majmuatu atu sulahfaat mooy groupe boo xamante ne ñu ngi leen di symboliser liñ tuddee mbonaat mbonaat benn rab la boo xamante ne day dund ci ndox dafa am qualité yoo xamante ne buñ ko gisee ci góor walla ñu gis ko ci jigéen dañ leen di classé ci groupe A symb muy symboliser groupe mbonaat am na solo li tax mu am solo mooy jigéen dafa war a xam jëkkër bi muy seyal mooy kan waaye góor dafa war a xam soxna bi muy seyal mooy kan jërëjëf kan mooy mbonaat ban jëkkër mooy lañuy ñuy symboliser mbonaat mbonaat li ñu njëkk a ci moom mooy benn animal la boo xamante ne dafa bari jàmm bon jëkkër boo xam ne mbonaat la mooy jëkkër boo xam ne bëggul ci ay dara bëggul ci xuloo dara bëggul ci fitna dara li mu xam daal mooy ay li mu xam daal mooy jàmm ak salaam xool leen mbonaat kañ lañu mos a dégg ne kaay leen jàpp mbonaat ca ñu ngay xeex musuta am parce que ni leen yàlla bindee naturellement mbonaat rab la boo xamante ne rab bu bari jàmm la bon am na soxna yoo xam ne jàmm rekk lañu xam am na ay góor yoo xam ne jàmm rekk lañu xam moom lañuy xalaat moom lañuy ñuy moom lañuy dox xamunu ci ay dara mooy mu saalimam waaw soxna soo xamante ne mu saalima kan moo ko war a denc waaye jëkkër boo xamante ne dafa bari jàmm comme bonaat kan moo ko war a seyal mooy ku mel ni moom ku bëgg jàmm ni moom parce que lu tax nit koo xam ne jàmm rekk la bëgg boo ko indee ab pànk boo xamante ne kaay ñu reyante moo ko gënal kaay ñu lekk kaay ñu xeex ci lay gën a moo ko gën a ci lay gën a sawar ne kaay ñu bokk jàmm bu xëyee suba teel balaa muy am jàmm xuloog ñépp teg booloo añ mu xeex ak ñépp balaa ñu egg ci timis mu meroo ak ñépp jëkkër bu mel noonu bu fekkente ne ki muy seyal mbonaat la bu boobaat ñaari nature yooyu mënuñoo ànd sey ci benn nekk li may wax ni ay notiir la bon nit ku bari jàmm ki ko mun a seer mooy ku bari jàmm ku mel ni moom pour ñu mën a composé wu jërëjëf ñaareelu qualité bi mooy xam ngeen ne mbonaat ci ndox lay dund lépp luy dox lépp luy dund ci ndox rek day symboliser ab set dafa set bon am na sa na soo xamante ne dafa set wecc nin ko yare seen kër depuis ba mu nekkee xale ba ba mu nekkee élève ba ba muy nekk collège ba noonu muy ñëw di la seyal si dafa nekk nit koo xam ne daa set wecc yërëm du tilim dallam du tilim néegam du tilim lépp may set lépp may rafet lépp fa lit te am na tamit ay góor yu mel noonu sa jëkkër bu amee qualité boobu wala sa soxna am qualité boobu kan moo ko war a seyal mooy jigéen bu set boo xamante ne setu jigéen bi dana tollook setu ko góor ki wala mu sut ko jërë jëf ñu ngi yem ak ci kàddu yooyu waaye incha allah ñu ngi ñëw pour jekkale ko